mën a rek mom moy Ousmane Sonko mi ngi won ci clinique bo xamné mom modone directeur bi après sortie yo xamantene également def nako aujourd'hui ñu ñu ñu woolu ko euh, yow ban jàngat nga ci am Serigne Saliw wolu woolu kan. Euh, Babacar Niang je vais rejoindre vraiment euh, l'argumentaire de Kader sur les motifs de l'arrestation en tout cas de la convocation de Babacar Niang parce que su qu'un ne. Il y a d'autres motifs aussi, je crois que nous Mais pour l'instant, officiellement, il y a absolument rien. Babacar jàkkaarloo na officier de police judiciaire ou wala Babacar jàkkaarloo na procureur bi kenn mënu la ko wax parce qu'il y' a du son avocat du a ku kenn wax ku ci wax rek da ngay wax donc pour l'instant instant luñ ci dit, c'est wax rek ku ciy wax rek ay supputation ngay def. Mhm. mais y' a aucun communiqué officiel du parquet du du du du son avocat du wa police euh, ken amul ken ko xamné am lo wax lu mu ci wax concernant le motif de l'arrestation légui nak mo bëgg leral tuti ci pour lim doon wax parce que aussi je crois gis nga waxtan wax deug daf ci bok koy leeral tamit da ngay wax ne yow sa sago rek ngay wax. waaw mais bàyyi ma bàyyi ma mais bi nga wax rek. la na ba pare xam nga xam nga d'abord lu gën a grave mooy. nit mënoo ah. nga ne. yaa ngi nekk diggante dund ak dee ñu lay laaj nag Pastef nga bokk nga naan waaw yow muy dund ak dee être dans un état être dans un état comment tu n'as pas écouté à RFM non mais mais nak, vraiment Pouy. non bon ma nee Pouy ngay laaj Pouy ma wax vas-y vas-y vas-y vas-y non non vas-y euh, allez-y vas-y donc je disais que quand quelqu'un est dans un état comateux il n'est même pas en situation d'être interrogé ce qui est arrivé accord Bob ngay wax oh, waxuma ko de Radio mais ko wax mais ma ma rek ak assistance non tu dois non, attends ne dis c'est assistance mais mais mais mais signer ak contrat d'assurance da ngay ñëw nga assurance fi la assurance assurance am clinique ce qui s'est passé avec cette histoire d'assurance bi ñu ñëwee dañu blessé est-ce que qui il fait partie des membres de PASTEF parce que dañu waa PASTEF nous dafa am benn contre benn benn assureur boo xam moom de sorte que ñoom seen i blessé chaque fois bu ñu assurance boobu leen en charge ñoom il voulait savoir ndax dañ ko war en charge par rapport à l'assurance bi nga xam moom la signé PASTEF les gens leur ont dit que qui il n'est pas de PASTEF donc dès l'instant que nous nee nañu PASTEF ça veut dire que assurance PASTEF mënatu ko jël en charge donc c'est, c'est une clinique privée il fallait nécessairement que les gens maintenant regardent les voisins moins, moyens nu ñuy nu ñuy fajee loolu léegi ñoom ñu jël seen malade ils l'ont acheminé ailleurs. mais mais lan lañ leen ci tagal Serigne Saliou. parce que loolu c'en est une chose. non xam nga xam nga Fatou Abdou Fatou non laisse pas Abdou poser la question. man dama man Serigne Saliou dama lay laaj ma yegg la question bi ayca kon ayca. soo paree nga posé ko ko. dama ne li ma lay wax li ma lay wax. soo paree bu la neexee nga jël rajo bi nga xam moom lañ ko doon interroger muy. RFM la muy RFM. waaw sa bi rek ki ki ki parle mu wax. ki parle Babacar Niang moo wax oui. c' est Babacar Niang qui a parlé quand Bamba Fall a parlé de de non prise en charge. moom moo ko leeral wax loolu c'est lui qui a parlé. du contrat d'assurance a xam mooy man ci Babacar Niang li mu wax fa yem. dama Babacar Niang ba mu waxee loolu ba pare. alors alors foofu nga yam ci li mu wax. textuellement maintenant ban commentaire man da nga may déglu seen. waaw mën naa ci ñëw après dama lay laaj non parce que da nga ubbi presse boobu avant ah, ngay avancer. dama lay laaj est-ce que avant may commenter il faut que ñu ci fay ba pare non bala may non mais est-ce que vous pouvez me laisser aussi parler. non mais day bàyyi. non vous n'avez pas le droit ah, quand même de me couper quand même. à chaque instant non xam nga leen moom naa am soit gis nga émission bii dañuy dégloonte. joxante cër moo gën. yaa ngi dégg non vous avez la parole moom laa la wax non non xam nga aussi puy ni muy comporté wu nii c'est pas responsable yaa ko tàmbali de waaw bir nga ne puy li mu wax xamul dara Ibrahima Pouy yow yaa ubbi dama ne Ibrahima Pouy lii du émission du émission maanaam su ma waxee ah, loolu du émission nañu dal après ñu wax ko sénégalais ñoom ñoo ñuy seetaan mooy ñuy seetaan ñu jàngee ci dara argumentaire oui Serigne Sall loolu nga wax ànduma ci man kañ say wax moom du ma ci mosaan lu ci bari moom laa la wax d'accord moo tax ma ne am ah, vas-y vas-y allez-y kon nag da nga may bàyyi ma développé dama ne moi je reviens sur les faits Babacar Niang l'imoua, mu wax maintenant moi je peux en avoir mon commentaire personnel mën solo mën na solo mais voilà ce que Babacar Niang a dit par rapport à la prise en charge maintenant moi, en tant que médecin c'est une déontologie man leen may ñu ne compte tenu de son état dañ ko jël en charge ñu faj ko qu'est-ce qui s'est passé ba ñu jël malade bi yóbbu ko loolu mënuma ci wax mais li Babacar mais yow ce qui normal jàpp nga ne moom laa wax non man sama commentaire non man mën naa jàpp loolu keneen mën na jàpp leen parce que on est dans les commentaires man su ma neexee ma ne comme que ñoom amuñu luñ fay dañ jël seen malade yóbbu mais dama ne la profession de médecin dafa nekk loo xam ne ni il faut avoir de l'humanisme yaa ngi parce que pour man sax ki nga xam ne dafa ñëw dans un état comateur jàpp naa ne su ñëwee sax waruñu jiital affaire xaalis parce que chaque jour dañ koy wax concernant les hôpitaux même publics pour man même concernant un hôpital privé ou bien une structure sanitaire privée pour man ki nga xam ne dafa entre la vie et la mort kooku soxlawul xam ndax poosam fees na wala poosam feesul yaa may maintenant le reste appartiendra aux enquêteurs ils ont déposé une plainte et que la plainte aussi a été suivie parce que on n'a pas encore dit que Babacar Niang dañ par rapport on ne sait même pas si cette plainte là a été instruite ou n'a pas été du tout instruite il faut que ça soit clair maintenant ce gosse là il y a le Yurum. mais aussi bu ñuy wax ce jour là il n'était pas de profession nervée il a eu un comportement nerveux Luda parce que moom il n'est pas habilité taxaw ne dafay défendre la mairie bi yore ngànnaay il n'est pas habilité xam nga dafa am waa police ils étaient là-bas police loo gis rek dafa am ñoo xam ne ils sont chargés pour la sécurité ñu koy jàng ñoo koy def moom jàng ko mënu ko def la mu jàng parce que ka ko ko sant indiwu fa makam indiwu fa doomam moom taxawu fa ka leen fa ka fa teg malheureusement les gosses l'ont pris à partie ñu dóor ko ba nga xamante ne ci la joxee ñàkk bakkanam mais mom, il ne lui revenait pas de prendre en charge la sécurité de la mairie parce que loolu du liggéeyam donc bu ñu bëggee taxaw daal ne doo nervi lii ki c'est-à-dire aussi il faut se dire du ku ñu tierce personne boo xam ne daf doon romb rek ko moi je trouve que sax waruñu ko attaquer ak nu mu mën a parce que bakkan dafa am dafa am doole mais aussi bu ñuy nett ci netal yi aussi toujours nañu wax li nga xam ne am je n'ai jamais souhaité à ce que d'ailleurs vidéo bi man bi ma ko gisee ñu koy wane sax. Mhm. j'ai tout fait pour ne pas regarder la vidéo bëgguma ko sax xool parce que dañ ma ko envoyé bi ma ko envoyé immédiatement dama ko supprimer parce que je ne pas du tout bëgguma koon gis parce que pour man c'était horrible donc pour ravenir à l'affaire Babacar Niang man jàpp naa ne aujourd'hui li gën a wóor mooy bu fekkee ne dañu bëgg a wax dëgg rek nañu bàyyi ba enquêteurs yi taxaw wax ñu gën communiqué officiel ñu xam lan moo tax Babacar Niang a été convoqué là-bas mais ba ji personne ne peut te dire si c'est par rapport à son Sonko si c'est par rapport à je ne sais pas le comment dirais-je le gosse de la Médina là qui est décédé si c'est par rapport encore à chose mais ce qui est sûr contentieux boobu ngay wax Babacar il a toujours été dans le collimateur de la justice parce que loolu ngay effectivement il faut même se rappeler que Bim mu ko wax convoqué war nañ ko ci affaire yooyu convoqué war nañ ko ci ba pare daal koy bàyyiwaat et le rapport bi gën ci Covid bi dafa génnewaat lu bëri ci moom li nga xam moom la doon dénoncé à l'époque est-ce que ba léegi ils ont une dent contre lui à propos de cette affaire là seul Dieu sait mais pour l'instant man li mu mën a wax mooy affaire bi lu ci nit wax lu ci nit wax da ngay wax loo neex et aussi il faut que essaie de cesser de donner de fausses nouvelles fausse nouvelle parce que ce matin j'ai lu dans l'observateur des fausses nouvelles d'une à propos du docteur Sissé Benhamé nga en charge la santé de Ousmane Sonko ils sont allés jusqu'à dire qu'il n'appartient même pas à l'ordre des médecins comment un journal pareil aussi crédible que l'observateur puisse dire ça sans pour autant aller même à la vérification de l'information donc il n'avait même pas il n'était même pas habilité à suivre la santé de Sango parce qu'il n'est pas inscrit dans l'ordre des médecins alors que c'est totalement faux que ce, euh, euh, neurologue-là il est inscrit à l'ordre à des médecins donc information yi ni ñuy véhiculé c'est dans le sens manipulatoire y a aussi c'est dans alors, le sens de diffuser de, de fausses nouvelles d'accord Serigne Saliou ci ci information voilà wala bokk ci supposition alors ci supposition et wax na ci commentaire non question là, laa nga répéter dama bëgg nga poser ko question il a répondu à la question est-ce que vous l'avez posé la question man j'aimerais bien que bien sûr que là, naa ko question Mais est-ce que a le droit quand même que même su fekkee ne nekkul assurance u clinique bi est-ce que am na sañ-sañ il a répondu à la question c'était donc raté mais non ci wax non c'est bon c'est bon un avocat du nom de Patrick Kabou dafa wax né manam amuñu sañ-sañu saytu li nga xamné moy traitement médical boobu Ousmane Sonko su fekkee né euh, momit ay supposition parce que jusqu'à présent semblait, semblait, mom la utiliser mais personne n'a l'information selon laquelle docteur Babacar Niang a été quand même convoqué ou arrêté ndax li wala li ou li japp na né euh, li nga xamné mom la Ousmane Sonko wax que né dañu def tentative d'assassinat sur sa personne empoisonnement et autres mom lolu ci li ci li comprendre ak ak li ma lire est-ce que aussi war nañu mëna saytu wala lëmbat le dossier médical d'un malade ba convoqué ci ki nga xamantene mom moy docteur Babacar Niang si bien sûr c'est le cas parce que boobu ba ay supposition lañu def mais amaguñu l'information. li ma waxoon ci tambalé bala may jël. Mhm. dama né fim nek ni nii kenn si ñun amul information bu officielle bu wax ni nii lañ ko convoqué donc dañuy supposer rek. ka mhm. muy avocat bi wax sax day supposer ba bañuy jot source bu officielle. benn mbir rek laay njëkk a ñëw mooy question bi nga posé Serigne Saliou dama ne ab docteur hôpital case de santé infirmerie lu munti doon aide soignant nit ku feebar bu yegsee ci barab ba ñuy faje nekk ci état boo xamante ne état d'urgence la obligation la par force à la force mu am alal ak ñàkk am alal mu suñu IPM ak ñàkk suñu IPM dañ koo war a jël en charge loolu amul est-ce que war nañ ko wala waruñu ko Serigne Sall xam lu mu waroon tontu obligation la bakkat non loolu ban texte ko wax waaye dama ne sëñ Sall bàyyi ma texte

amul urgence bo xamantene dans le monde entier fu ñu la ko antenne ne la mu ngi diggante du nak de nga du laal parce que IPM bi nga xam moko wara ko jël en charge newu fi docteur bu ko def booba dañ leen top ci yoon le droit humain hmm. droit de l'homme wala karam naa banni aadama donc amna lo xamantene c'est le minimum sapeur pompier lan la ñuy wax sauver ou périr bu ne kër gee day tak même bu dee dañuy dugg ci biir safara bi pour sauver koko ñom ñu des dañ koy def croix rouge buñ ne guerre amna na bu fa démé bomb tak fa waaye ni ab fa tëdd day dem jëli ko armée qu'est-ce qu'on dit on nous tue mais on ne nous déshonore pas le déshonneur d'un militaire moy fu mu war sauver benn bakkan mu daw bakkan ba faatu loolu déshonneur la moom donc xam nga lan la ay waxi texte dama ne dafa am foo xamante ne nous ne sommes pas experts dans les textes sanitaire mais dafa am loo xamante ne ne fàng kenn du ko jeex waaye da dañ dem ba toll ci réew moo xam ne da ngay toog gis lu ne fàng nga ne da koy jeex soo ko jeexee ba for ko sax danga koy làqaat di ko jeex jeex lu waat loolu mooy li nga xamante ne bokk na si gàllankoor réew mi dañ dellu si xel dem mi de Médina dama ne Grand Yoff géem a dëkk waa Grand Yoff maternité bi nga xam ne moom lañ fa muy poste de santé ba hmm. dañ ne képp ku fa ñëw pour taal ko danañ ko protéger mais les gens de la bu Médina bu Grand bu Thiès ak fu mu munti doon quand on parle un geste patriotique mooy protéger li nga xamante état civil bi nga xamante ne ay dossier bulletin de naissance su jàmbur nga fa ku soxla kayit fa nga koy amee police ne amee devoir protéger le citoyen sénégalais noonu la amee devoir protéger ces institutions c'est ça le devoir patriotisme man sànni est-ce que euh, euh, mairie Grand Yoff ge buñ naree ñoo lakk dossier de naissance yi acte de naissance yi wala nar a saccagé hôpital ba ñun waa Grand dañuy taxaw bu police ñëwee renforcer ñu bu police taxaw ñu ñëw renforcer ko. xam nga lan il faut qu'on arrête. c'est pas waaye sama waay même sama xalaat laay wax. ce n'est pas de votre ressort. waaye dama ne sëñ Saliou. ce n'est pas de votre ressort. Serigne Saliou def ngeen loo xam xam la. Serigne Saliou may ma dañu eh, xaaral xaaral xaaral eh. xaaral da nga am loo wax léegi da nga ne il faut qu'on arrête la manipulation wax nga ko ci say kàddu. c'est pas de votre ressort. waaye dama ne xanaa tey ngay soog na arrêté la manipulation xanaa tey sëñ Saliou des fois nga toog fi di wax ay information xam ne manipulation kese la dëgg xamul dama ne lu ne fan kenn du ko jeex dama ne il faut qu'on arrête de bluffer les Sénégalais le jeune de la Médina dama ne du nervi il a eu un comportement. nerveux dama ne il était en train de protéger sa mairie en tant que patriote. mënul protéger mairie ba dans la mesure où les forces de sécurité étaient là-bas. les forces de sécurité mënuñu fa nek ba pare. kii ma laisse ki c'est ça le problème. kii ma laisse la preuve mi ngi nii. kii ma laisse continuer dama ne dama ne sëñ salut ah. tu me laisses continuer terminer il faut que nous delloo soit xel yi gis nga ci gën a jeunes yi dee ci mbir yi jeunes de 15 à 30 ans mhm. parce que nous, la ñuy lavage du cerveau Nous, ñooy ils sont inconscients la plupart c'est ñi ci dee rek 15 à 30 ans 35 ba 50 ans pour que vous c'est un problème. Parce que nous pour pour vers le lavage de cerveau, c'est un problème. C'est un récisi. Bon, la jeunesse. Mhm. Les Sénégalais doivent reprendre la raison. Parce que les gens, quand ils sont allés voir, ils sont allés voir, ils sont allés voir, sénégalais moi les sénégalais sénégalais a les sénégalais Il y' a pas de gagnant. alors cette y aura il y aura toujours des perdants. que du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, nous serons toujours les perdants. alors donc il faut qu'on de dire la vérité aux sénégalais. très bien Ibrahim, c'est la manipulation. clair alors Kader beaucoup d'interpellations également docteur euh, amna ci ñeneen ño tek nañu loxo ci